dama man way naa laay yore wetal dama dégg nga loolu alaaj mm-hmm. ma ne jigéen bi mm-hmm. waa ji daf ko ëmbal mm-hmm. ba noppi bañ commencement ndaw sa nag adduna yi ngay doxa doxa doxa doxa doxa doxa dox nga wenee ni góor gis ko alaaji bëgg ko takk ko waaja topp ko xanaa ne ko rek boo ñëwee ma nangu ko boo ñëwee Samba Kori Ndiaye ginnaaw rek ne na ci nekk ñoo bari waaw loolu nag xaw ma tey nan la ko nit ñi di lijjantee moom man moom li ma dégg li ma jot a dégg man moom damay téye la yëglu moom. ah. ah. siyaar leen daal xamal naa la ko laaj. Hmm. ah yow xëy na nga tane ma ci daal. <laughs> su ne ñëwul. dama amal benn waay benn doom bu góor xale bi bi ma ko ëmbee 2011 la dakaar fii bi ma ko ëmbee bi ma demee ba yëg ne ambu naa laa ko laa ñëw ba ci moom ne ko diw ma laaj ma dem kër yaayam bi ma demee kër yaayam. àgg fa laajte ko yaay ji ne ma dafa génn toog a xaar ko ma toog xaar ko ba mu ñëw mu ne ma jàll sil ci néeg bi ma jàll si ak moom ma ak moom yàlla kese ma ne ko diw man de dama ëmb mu ne ma ëmb ku la ëmbal ma ne ko yow xanaa mu ne nan laa def ba ëmbal ma ne ko li nga def ba ëmbal ma xam nga ko man xam naa dama ëmb wax naa la ko mu ne ma boo bëggee sa baayu doom danga koy wëri man du ma sa baayu doom. boobu yaa ngi ëmb si ñaata boobu xamaguma ndax boobu mooy sama première doom bi mu defee noonu man ma daa ne ko amu ah, ne ma waaw fekk maa ngi jóge Touba bi ma jógee Touba ñëw wàcc laajte seen koñ bi ñu wan ma ko ma laajte laajte ba ci kër googu ma ñëw toog ma ñëwee mu wax ma loolu ma génn ñibbi taxaw ci arrêt bi aw ma sax oto Touba taxaw noonu ba mu guddi ay après ju liggéey yooyu benn waay fekk ma fi ne ma soxna si yow li ngay def wóorul de ci ngoon ba tey maa ngi la gis fii te yow daa mel ni da nga tollu diggante léegi nañ dem sama kër. man kii sëñ bi dugg ma ci yooyu mu ne ma nañ dem man dama am jabar dama am ay doom du ma def jigéen lu bon ndax jigéen mooy sama yaay ma ne ko amul problème waa ji daal di ne ma nañ dem oto la yor mu yóbbu ma ba ci kër jabaram ne ko ah kii de dama ko fekk ci arrêt Touba te heure bi guddi gi sàmba boy yi dañuy bari foofu ma bëgg mu fanaan fii ba suba nga defal ko mu reer may ko mu sangu femme bi ne ko amul problème defal ma yépp mu xëy fajar ne ma ah soxna si est-ce que doo naaje jugal ma yóbbaale la moom kalandoo la yor foofu mu yóbbaale ma daal di dugal oto tuubaa ma ñibbi ma dem foofu toog foofu toog foofu ba yàlla defal ma jàmm xale bi dew amewuma ko doom hôpital def ma benn visite pour xale bi bi ma demee ba am doom bi ma demee ba am doom loolu ma daal di toog ay deux mois trois mois kenn ku nekk di ñëw comme si boo xasee ba am doom rek nit ku bon nga picc moo gis ci mbedd war nga war na mën a sëy ak yow ñuy def noonu naan nañ ko jox diw nañ ko jox diw benn jour sama benn maam ñëw ne diw mii da laa bëgg ñu may la ko ma ne ko man ku ma xamul nan laa koy sëyalee mu ne boo ca duggee doo ko réccu commence di wax ay yëf sama benn nijaay daan ne diw bu ngeen ko mayewul bu feralee doomam bii dina defaat lu raw lii buy feral di baat ndax loolu moo ne ci bopp bi baat boobu métti ma may dund lu métti ma dem dab sama maam mu ñibbi ma ne ko amul problème nañu ne ay mbokkam li mooy sama sëy ak moom yàlla nag dimbale na ma ci ñaari bant yu jigéen laa ca am su fekkoon góor la dinaa xam ne tey ay samba booy la ñu doon ndax sëy boo xam ne bëggoo ca dara te ba ma ci sëy ñoo xam ne ñu bëgguma ca dara ñu def ay affaire yu seen ñaan ma toog foofu toog foofu ma ne ko mu naa ah, ma ko chaque jour ngeen indi ma problème sama sëy bëgguma ci dara te su ma fi tuuree sama butitu njurukaay ba mu jeex di ngeen ma yóbbee lu ma xamul ndax léegi doomu aadama yi yor dimbaleetuñ kenn ku ci amul doom bu bu la mën a yor perte nga mu ñëw ci sama goro bi waxtaan ne ah diw mii de dañ ne woon fi taaloo jigéen nañ ko nañ dindi affaire bi ñu ko defaroon daa benn garab bu ñu defoon sama biir néeg bi ci lañ ko dajji digg bëccëg ci noonu maa sama jëkkër mënu ma yor amul dara wëlbatiku ne moom dafa bëgg a jël doom ci adapté dafa am lan lañ la defoon lan lañ def sa biir néeg benn garab lañ ci def. pour affaire yu dij daal dott. Ah, pour ñu dañ dott fa pour nga toog fa. waaw ma dem nag ba xam affaire yooyu ma daal di ñëw expliqué ko sama maam mu ne ma non amul problème la ñëw ci sama goro bi am lu mu wax ak moom mu ne ko garaawut ñu ci lañ ko dindee ci noonu sama jëkkër ji amul dara lu ma yoree man maay dem ci àll bi xaw ma luy taxan xaw ma luy bay maay dem taxani jaay sama ay matt yooyu su ma ñëwee yóbbante jënd ay bagage togg kër gu mag laa nekkoon di metti nag. ba ma demee ba sama jëkkër bi tamit di jote ak man damay wa dama danga may jox sa doom bi ma doon baayam wutal xale yi kayitu jun man na leen doole ko santalee seen sant kii mu ne ah, ko baayam ñu ne jonn du dinaa ko teg bët su ma deewul wala xale bi dina màgg ba teg papaam bët ñu naa ah, noo gisee ma ne leen waaw xale bi judduwul hôpital amul kayitu judd benn kayit bi mu juddoo déclaré woo déclaré wu ma ko bi ñu defee noonu ma di mu dem ba dëgër ma yóbbu ko sama benn mag bu jigéen muy jëkkëram yoo foofu benn daara mu fay jànge di fa jàng ba temps ma dem mu ne ma yaay man de xale yi ñëpp ñu fi nekk seen papa dañ leen di seet man sama papa ah du fi ñëw seet si ma ma ne ko ankay ah, dina fi ñëw ma ne kii su màggee tuuti su ma ko waxul dëgg bi wala liggéentiwuma param dina ma dina dem xaru wala leneen fekku ma ci duma ko def ci laa ñëwaat dem ba ci kër papaam laajte ko ñu ne ma ma leen daf ana diw ñu ne ma diw dafa génn ma laajte ñu ne ma yaayam moo fi ne ak rakkam bu jigéen ma toog noonu ci bunt ba mu yaay ñu ne ma jàll si soxna si lu xew baa jàmm la ma ànd sama benn nijaay mu ne leen jàmm la ma ne leen jàmm la kay diw soxla woon mu ne diw nga soxla ma ma diw dafa génn ma ne dafa sori man naa ko xaar. boobu temps boobu noonu ñaata at nga toog gisoo waa ji. 2011 laa ëmb xale bi. 2011 bi nga jógee ci moom ba mu ba mu gàntal la ne la ëmb la ko boobu bi nga fay delluwaat mooy bi nga fa àndee ak sa nijaay. bi xale bi màggee ba naa ma yaay xam saa sama papa du ma seet si. xale bi ñaata at la am. xale bi instant kii 2011 bi daal ci la judd. ok ci 2012 bi ci la judd. bi màggee nag ba kii nag ba xàmmee la na ma yaay sama papa xanaa du ma seet si. d'accord bi nga àndee ak sa nijaay dem kër waa bi ma demee fekkuma fa waa ji dama laajte ñu ne ma diw dafa génn maa leen sori na ñu ne ma ah, sori na kay lu xew ba jàmm la maa leen jàmm la ci laa expliqué femme bi ne ma ah, loolu de soxna si bu ko diw defee nëbb ko yow danga waroon a ñëwaat ci sama yaay wax ko wala nga woo ko téléphone ñu toog waxtaan ko ndax boobu ba léegi loolu dafa yàgg. xale bi ndax am na kayitu juddu maa ne ko non non amul kayitu juddu mu ne ah diw de wax dëgg faa sori na ndax instant bi dafa voyage génn na Sénégal ma ne ko ah mu ne mu ne ma di jël jox ma sa numéro après dinaa ko woo su ma ko woowee jox ko sa numéro. ngeen déggal yaay xale bu góor bi. rakkam bu jigéen yaay xale bu góor bi mag la. Ah, na waaw waaw. ah yëngale kay. ak seegul ci papaay xale bi de. xanaa papaay moom sa sëy ba xale ba. ak jaar jaaram ak maye bi ñu ko maye. waaye explique e- e- eggagul. dem na sax ba wàññeeku ba egg ca kër papay xale ba ba retrouver kër ga. waaw mais eggagul ci jokkoom ak papay xale ba lan la ko papay xale ba di wax. rakkam bu jigéen moom wax loolu mu woo ko ci guddi bi noonu matul sax 30 minutes ci la ma woo ne ma dégg naa da nga ñëw suñu kër ma ne ko waaw mu ne ma ah lu xew yow boobu depuis 2011 ba tey maa ngi lay xaaraat dégguma la fenn dégguma la gisuma la ma ne ko mënoo ma dégg mënoo ma gis ndax dama dama ñëw nga toroxal ma comme si xaj génne ma ma ëmb sa doom moo tax gisoo ma déggoon te depuis boobu maa ngi lay woo téléphone nangu jël mujj gi nga changé numéro bi numéro bi damay woo waaye du dem. mu ne waaye 2011 ba tey dafa yàgg man maa nga doon xaaraat waaye amul benn problème comme que noonu la demee man maa ngi jéggalu bu baax xale bi lan la sax ma ne ko xale bi góor la mu ne waa après danga may envoyé photo mu ne ma danga ma danga am jëkkër ci diggante ma am naa jëkkër ba am ñaari doom mu ne ma ñooñu nag man mën naa la takk yor sama doom ak yow waaye mënu ma yor ñaari xale yi. kon instant boobu nangu na ne moo jur xale. nangu na ko mu ne ma man. mënumaa yor ñaari xale yi waaye yow dinaa la mën a yor waaye duma la yóbbu sama kër jabar ndax dama am jabar ak ay doom sama kër yaay laa lay yóbbu ma ne ko ah loolu de gaaw na salaama maa salaam naa ay takk man bala nga wax waxi takk waxal lijjanti doom bi ba pare fu muy féete ne ma noonu nañ ko bàyyi noonu ba yaa mu ma envoyé photo xale bi ma jël foto xale bi envoyé ko ko bi ma ah, mu ne ma xale bu ñaaw bii du ma pàppaam ma ne ko golo ñaawul bàyyi ba la nuru mu daal di reetaan ne ma envoyé ma sa photo ma ne ko yoruma photo mu ne ma yaa ngi diriyanke ba tey lijjantiwu ma ko ba mu toog ba mu neex ko naqari ko mooy envoyé ay vocal di ko supprimer ma na ko diw yow de juboo nit bu jubee du envoyé vocal ni di ko supprimer man jomm naa di jël vocal jàmbur di ko partagé ndax bëgguma ko ma ko def du ma ko def doomu aadama mu ne ma léegi sax maa vocal tut ak yow après whatsapp la ñuy déggante soo bëggee baax na soo bëggul baax na man ko ba tey mu xëyaat woo ma ne ma léegi damay des test test adrien sa waaw. su ma ko defee loolu xaalis bu weex tàll la su ma ko defee su ma juree xale bi moom sama kër nga jëm ak xale bi waaye ñi ci des na leen seen bàyyi yor man du ma leen yor dama ko reetaan ne ceel mun ma ne ko léegi mu ne ma léegi fekkee jurul ma ko maa yow ba géej gi fer ndax dag may fay sama xaalis wala ma def la leneen ma ne ko amul benn problème yow nag ma doom bi boo ko juree depuis 2011 bi ma ko ëmbee ba tey jii suñ jonn yàllaay tey bu solee tubay man la bu solee mbubu man la léegi xaalis boobu danga ma koy jox mu ne ma amul benn problème am neex ko naqari ko barki dem mu woo ma rakkam bu jigéen woo ma ne ma ah, diw de man de yaa diw da ngeen may bëgg a jaax bëggoon naa ci wax waaye ma nanga ci génn sa yoon nekkatu ci nanga ci génn ndax man jigéen kese laa bëgg lu baax moo taxoon ma cay wax waaye nee na xaw ma danga koy jaay réewande xaw ma ñàkk kessa léegi nag lenn laa bëgg man dama cay maanu man ko amul benn problème mu woowaan moom ku magam bi ne ma diw mu ne mu ne ma yow sama kër yaay boo fa tegatee tànk di nga xam ne sa yoon nit ki ak sama rek amoon lay wax ak ñoom ndax juru ma sa doom boo bëggee sa bàyyi doom danga koy wëri li ma la may dafa ëpp foofu laa yam nag juru ma sa doom te juru ma sa doom ëllëg te bu bu déggantee man téléphone. yow xamoon luwaa ndax boo xamoon luwaa ba ma ne la ma sa doom la nga da nga waroon dem hôpital déclaré sa ëmb amee boo amee doom nga déclaré ma xam année bi ma ànd ak yow mois bi ma ànd ak yow yépp ma noté ko teg. foofu ngay amee dëgg waaye bu dee xamoo yoon dinaa la wan wi yoon mu ak man sama doom jaraa na ma tëdd kaso ndax kenn fekkuma ci 2011 ba 2021 nga am ci jëkkër ci diggante bi sa jëkkër taxaw naan la ini ma bàyyi bàyyile ma xale bi ma bañ kooku asigoor ko sëy ko man keneen mënu ko ndax ko dama naa ko jëlal waaye duma ko def ndaxte doom nawle la te ñaanuma yàlla dund na ma dundoon instant bi sama tànku benn tànk bi moo gën a jege àllaaxira ka benn bi ci àddina heure bu ma xëyee sama dee di ma gën a jege am na yoo xam ne du ma ko nangu tey duma ko nangu ëllëg waaye kon ma jël n'importe qui di ko bàyyile xale bi waaye duma ma ko def ndaxte ku ma ko defoon du ma nag du ma neex moo tax du ma ko def kenn waaw loolu rek laa amoon lu loo bëgg yow da nga bëgg maanaam moom mu reconnaître doomam. moom mu reconnaître doom te mi ngi may ménager ne ma léegi bu fekkee te xamoo yoon man dinaa la wan lan mooy yoon. yow ñaataat ngeen génn yéen ñaar. man génnuma ak moom dama doon liggéey ni fréquente kër gi ma doon liggéeyee. bi mu fréquenté foofu benn jour mu ne ma diw dama bëgg nga seet si ma a ko man damay wàcc dama guddee mu ne ma ñëwal benn samedi ma ne ko bu ñëw mu ne ma ñëwal daa am lu ñuy wax man daal di ñëw toog ñu toog waxtaan dans cinq minutes mu ne ràpp bunt bi tëj tasanteeg timis di jot ma ne ko yow yow looy tëj bunt bi mu ne ma dama koy tëj kay ma ne ko porte bi doo ko tëj ubbi xam nga góor ak jigéen bokkuñu doole te boobu mi ci digg doole mu ne ma dama koy tëj daal di jël caabi ji sànni ci la ma tëddee man na ko nag boo taxawee naan ambuluma la dangay wax lu la neex ndax bisam bi mu waxee sama nijaay dafa ne ko lépp man la waaye maa ngi jéggul ma bëgg sax su après affaire yi bu jàllee mu bañ a siiw man ma takku ko ko waaye sama kër yaay yooyu yëpp wax na ko ak sama nijaay bi mu ne ko amul problème ba tey ji mu génnaat ca ba set wecc maa ngi moom mosuñu génn wax dëgg fa yàlla ndax boobu laa gën a féete xale mu ne ma yow noo xamee lijjante xaalis te munoo xam sa mois bi nga ëmbee mënul nekk loolu sax wax na ma ma ne ko bu fekkoonte ne démb nii di xel mi ma am tey jii nii ak démb amoon naa ko kon danañ weesu fii maak yow ndax sama ñaar doom yi ma am hôpital la ñu juddoo kenn ku ne am na kayitu judd sama jëkkër moo ma yóbbu hôpital kii nag bi may lool di dal xaw ma sax luy affaire àddina. boobu boobu maa ngi am kii maa ngi maa ngi maa ngi am 16 ans laa am. bi la waaj di di trompé boobu maa am seen kër gi nga doon liggéey waa kër gi yow yëgoon nañ ko. gi yëguñu ko ndax bi ma nee ba amul feeñ ma laa arrêté ne damay ñibbi ñu ne ma lu xew maa leen du dara dama sonn damay ñibbi ci laa dem ñibbi. boobaa léegi déggante waatuñ bi ma ñëwaa bi ma fi ñëwaatee sax dem naa xool leen waaye dañ ne ma ñooñu nekkatuñu fi xaw ma fi ñu dem ay ay locataire lañ woon foofu. d'accord lépp dakaar la xewee woon. lépp dakaar la xewee woon. waa ji dakaar la dëkk. waa ji jam ñaajo la dëkk. ok waaye Dakar gi la nekkoon jam ñaajo la dëkk. ok mais actuellement ni mi ngi France. waaw mi ngi France instant bi d'accord merci beaucoup. de rien maa ngi ñaan Ahmed Aïdara sax laa ne woon naa ko gis waa ji ne mënoo ko gis maa ngi koy ñaan ndimbal taxte instant bi sonn naa trop ndax sama papa dund sama yaay wéeruwul ci fenn sonn naa trop su ma sañoon nag jaay doole gi may jaay ak loolu yépp mu deñ ndax daf moo bam ba mu gëmee boppam ne day def test adélien bi bu ko bu fekkonte ni def na ko. bu réclé wutoon def ko dina xam ne damay am dëgg ci kawam dafa arriéraat gi dellu ginnaaw ne loolu duma ko def maa ngi ñaan autorité yëpp ñu dimbale ma ci lu ma am jël loolu laay ah. li ameen Xalifa Ñas wax démb nii bu góor ne la met xëccoo buntu tëj waaye doo yuux ok ok ok ok xam tamit dafa mënul nekk maanaam ci ay jafe-jafe ko koy yedd ak ay xëy na yedd gi bu beneen yoon a tax a tax tax waaye daal voilà dëgg yàlla jaaral waa ji natt ci heure timis ah même bu dee xale nga fukki at juróom-benn nga ne ko déet ba pare fukki at ak juróom gone la ndeysaan. gone la de xam nga mun nga supposé aussi ni kër ga ba muy yuuxoot kenn nekku fa woon Mohamed Diaw. Ah. kër gi kenn nekku fa woon donc mun nga supposé loolu noonu. mun nga ko supposé nga ni kër ga kenn nekku fa woon moment boobu noonu ñu koy ñu koy ñu koy ñu koy ñu koy def loolu noonu. en tout cas moom moo ko ëmbal te nee na moom ci moom depuis moom mu nekk xale ba sëy fi ba am fi ñaari doom ba divorce fi yépp mi ngi taxaw ci ne. taaw bi kooku moo ko jur moo ko jur moom ba ñuy test ADN na ko defal test ADN bi rek ko reconnaître xale bu dee moo ko jur bu dee defal test ADN bi jurul ko nag mu doxi faw yi dem seeti ne mais du moment où nee na moo ko jur 2011 ba toy ba tey mi ngi mooy ci moo ko jur sëy na fi sëy ba joxu ko dara mu delluwaat di wër papay doomam ngir yàlla jëmi rasul laay bu ko mënee wala ay mbokkam bu ñuy déglu nañu wax ak waa ji mu def test ADN bi comme am na moyen def test ADN bi na ko def parce que léegi werante ay maa jurul jurul moom jaratu ko fi ndax euh, mbir yi moom soppeeku na bu baax a baax na def test ADN bi bu dee moo jur moo xam bu dee jurul nag moo xam ne tamit jurul mu jeex coow li jeex mais du moment bi sëgg na fa mu sëgg 2011 ba tey na yaa jur nga taxaw naan maa jur di kekkantoo di envoyé ay audio di effacé rafet nga ak naa la takkaat waaye ñee duma leen yor ak naa def léegi naa def laa te moom li muy sàkku ci leen dong la nga reconnaître xale bi moom neen ah, sax tontu ko ci loolu moom la mu bëgg pour l'instant mooy reconnaître xale bi rek parce que xale bi ku ne taxaw na ni maa ko bëgg reconnaître mu ne kenn du ko fi reconnaître ndax am na baay ah. comme moom foofu la teg xale bi te foofu la teg ni dafa baayam bi ko jur noo ko reconnaître na ko ci jàppale ay mbokk baayam tamit nañ ko ci jàppale loolu nag il faut ay mbokkam jóg ah foo ay tamit wax ci dégg nga loolu loolu moom alaaji il faut il faut ay mbokkam jóg ci parce que xëy na ki mu njëkk amal doom xëy na moom est-ce que nekku ni moom la gën a bëgg sax waaw li tax li tax muy jokkoo waat ak moom ak yu ni mu dugg ci ay kàddu sax da ci gis loolu waaw waaw xool day la ca njëkk waaw parce que parce que wax dëgg yàlla. kii ndeyte mariage ne forcé la nee na. kii muy sëy waaw li ñu ko proposé. bari na ay junni junni jigéen yu ñu ko proposé nekk ba rafet ba taaw ba ñu yóbbu ci kër ga mujj doon taawu kër ga. ak ku ñu ko proposé wul nga bëgg ñu proposé la ko. ak jigéen boo xam ne proposé wuñu la ko. nga bëgg ñu proposé la ko kon man maa ngi soog a gis ku gàntu lii mu gàntu dafay wane juste ni kon ki muy seel. waaw moom ñaari doom déedéet moom bëggul wax na. moom kay bëggul moom kay bëggul bëggul nee na ay at te bëggul. donc bëggul bëggul jigéen jigéen ju am doom ci ak njuumte. waaw. góor takk la. Hmm. sawar lool ci jël sa doom jooju. boole ay doomam doomam mu ne ah. jo jo ko sa bañ man bàyyiwul mosuma ko gisee. bëggul bàyyiwul lu may bañ. bëggul dafa bëggul rek waaye nag waroon a gànt solution boobu en attendant. dafa bëggul rek ah ku la gedd da ngay gedd fekkee nag ni muy continuer di xuuñ waaye daaw mbëggeel day mbëggeel day alaaj jërë na day. mun na nekk mbëggeel. mbëggeel la de. mun na nekk mbëggeel. mun na nekk bras de fer. wallaahi am na laaj am na nit yoo xam ne. mën na nekk tam un combat de principe. waaw kay combat principe man am na nit yoo xam ne le fait que waa ji def ko ba pare taxaw ni defuma ko. ci kanamu ay mbokk mu bëgg siggil ay boppam ci ne force waa ji moo def nii. donc bëggul kee déclaré ko papa ji ëllëg doom ji ëllëg ñu koy xoole comme ça yaay dafa demoon dakaar ñu ëmbal ko fa mu ñëw amoo bàyyi. non mbëggeel moom mën na nekk loolu mën na nekk leneen aussi mun na nekk mbëggeel aussi mun na nekk mbëggeel de wedduwuma ko mais mun na nekk par principe par rafetal deram aussi mais par bëgg xale bi ki ko jur tamit reconnaître ko. mais mais reconnaître erreur. nit ñi tam il faut ñuy bàyyi di may jigéen. jigéen même bu deewul ba am ñeent fukki juróom at. bàyyi nañu bàyyi di may jigéen ku mu bëggul. alaay sëy dafa doy waar de. baax na oh, loolu nag loolu nag gis nga loolu alaay. ah loolu nag kaay ma la benn affaire gis ah. xale yu jigéen ñi alaay. waaw dañ ciy nekk victime. bari na. waaw léegi nag bu ko defee. Ah. waaye ci biir njaboot gi daf ci war a am ñenn ñoo xam ne dañu war a démarqué wu. ah oui ah sama doom ji imagineel ma yow mu te am na ñoo xam ne ah du ñu wane ne dañoo bañ de xamul sax. Mm-hmm. nawloo ak respecté bi ñu respecté. Mm-hmm. seen i ndey ak seen i baay. Mm-hmm. sama papa ak sama yaay ba ñu waxtaanee daal ngir ñu may ma daaw da man du ma ca teg baat. non loolu la ñu wax. waaw fekk yàlla xam na ni Ibrahima muñ bëgg. waaye fi mu nii. waaw mbirum waajur tënk na leen. tënk na leen am na ñoo xam ne nag dañ naan tekk ndax loolu waajur tënk leen mais am na ñoo xam ne nag dañu rébélé wu. waaw waaw na rébélé wu mm-hmm. nag. la seen mbokk yi di yëg histoire bi mais am na ci ay jeunes filles yu bari. alaaj ñoo xam ne ñu ngi souffrir. souffrir benn souffrance silencieuse boo xam ne ña mbokk yi. waaye sa guddi bu dara desulee lu dul tëddi laa lay wax nii ñu ngi ñu ngi mel ni luy waaj a dugg seen biir bàmmeel. wallaahi. man de am naa ci xale bu jigéen boo xam ne daf maa woo woo mu jóge amatuma solution ci moom ma ne ko man dama amatul solution ci yow ngir yàlla ci ñàkk bëgg rek waa am naa ci may nañ ko ko may nañ ko ko force kenn koo xam ne nee na bëgg bëgg moom it mu bëgg a dee mais ñu ma ko may ñu may ko keneen ba mu am ca benn nee na benn doom laa ci am waaye man kee laa bëgg te man saa bu kee demee Italie man kee laay nekkal bàkkaar boobu nag laa mënta continuer damaa bëgg nga wax ak samay parents ñu tas sëy bi bàyyi ma ma sëy ak xam nga man mii tamit xale gone naa mënumaa lijjanti yooyu yëpp. dama ko yërëm day wax di jooy di dalay woo di wax di jooy di di la di wax di jooy. ba yow après. dafa am ñaari phénomène yoo xam a wax ñaari phénomène yoo xam ni wax dëgg yàlla. moo bëgg yàq Sénégal te. Mhm. du dara dara warañu ko lu ñàkk dëggu gi nekk ci nit ñi. Mhm. gis nga gis nga tànk. Mhm. day tàllalu mbaamu ndam. sëñ jigéen Mantoulaye ba mënatu leen a nekk. parce que mënatoo ko yow parce que seen diggante cofeel ga nekkatu fa confiance ba nekkatu fa war a mën a sëy ga nekkatu fa mhm. mu ñaan la baat mhm. nga ne ko kenn du la takk duma la may baat mhm. di ko traîner pendant dix ans loolu loolu dafa bëri Sénégal te dafa jaaduwul beneen bi ci def mooy bëgguma bëgguma alaaji yow yow nga génn ak gel bi juróomi at man xëy na sa am am yee ma may. man mm-hmm. ma ñëw ak sama xaalis gaare sama 4 x ñu may ma xale bi génn ma ak moom xaw ma ko xaw ma. Mm. ñu may ma ko. amuñu. ñu ngi koy waxee dara. du dara. Mm. sentiroo dara ci moom. mais alaaj ñaar yooyu ñaari phénomène yooyu ci aar tegu sa ci aada ju baax. vraiment xam na non non non du aada. du diine du diine. Euh, euh, euh, tolluwaayu jamono sax da koo nekk. non non bëggee dégg dëgg alaaj ah. tolluwaayu jamono ci boppam sax da koo nangootul. wallaahi vingt-et-unième siècle bi nangootu ko. wallaahi ci yoo xam ne la pour yow nga ñëw comme ni nga ko waxee. jigéen ñaan la baat. waaw nga nekkoon kon ñaare ci ne de ñaan baat gi. waaw benn bi mooy doo dem. beneen bi mooy dama lay bàyyi de. mais yow illaa yow mi diin la dootoo sëy yow dootoo sëy. dama bare am na ci ñoo xam ne duñu duñu seen menaces yi. waaw. da dañuy wàccoog moom de. ba pare day tombé koy def wuy. <laughs> da koy def gisoo message ma la woon keroog kooku nee na ba mu tas jëkkër def ne ko yow benn góor ñi dañ lay paasante rek mais kenn du la takk nee na waxam bi am na 10 ans ci ren. billaay am na ñoo xam ne nag psychologiquement alaaji. billaay loolu day mhm. daf leen day nekk seen bopp. Mhm, ngeen même góor bu ñëwee sax. waaw dañu koy gëm nag. dañ koy gëm. ci gëm fekk xoolal. Mhm. waa ji waxu fi tuus. waxul dara dara la fi waxu. fi dara.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 ka xam nga ñoom ñuy dem utiwaat keneen wala ñu utiwaat ñeneen. ñeneen. nekk ak ñoom ba pare yow teg seen bët ci yow moomu noonu. ne yow doo am keneen yow. wutee ma wuti. man ku def xale bu jigéen boo xam sama rakk la wala sama jarbaat. billaahi booy taxaw xaar la. c'est que jigéen ñi seen seen frère ñoo ñax fayda wala seen yi man du ma. dama maa ngi nangu yow nga nekk ci aafiya. et kii nekk sama deret nga koy torturer. te loolu fermel la boo xam ne ñun laay jigéen ñi ci nekk victime alaaj ñu ubbi woon téléphone bi nekku ci. seen i la la ñu càmmoñ la ñeen ñi alaaji baax na ba nga ma fasee ba ma xëyee laay jubali tribunal ah. ba ma xëyee laay jubali tribunal li jënti procédure bi pour pour mën a am sama certificat de divorce ah. mais toog di xaar toog di xaar rek am na ñoo xam ni ñàkk mbokk mu leen jàppale la mhm. benn ñaar mhm. am ci ñoo xam ni biir sëy mbokk gi maanaam day am ñoo xam ne dañuy war a jug am day war a jug jàppale séeram mais comme que kam doon séeréer la nga ne bu ma ci duggee est ce que muy sóor du ma mujj mm-hmm. Mm-hmm. famille bi tam côté bee tamit mere ma mm-hmm. te yow nga xam ne lu góor lii li muy def ñu tegu ko fenn ko fin léegi nag nga am complexe dégg loolu ak ñeneen ñoo xam ne troisième bi nag moo gën a bon bokkoog waa ji dara waaw waaye day am ay nit yu nekk sa biir famille bañ la waaw foofu yow di lëkkaloo kële feneen. waaw te waroon na ñëw sax jàppale ah. waaye kii la ñu naan xoolal wuy dafa rew ba dof téye ko fi ñu ko téye. ñun lii bu ko daloon téye ko fi ñu bu ko may benn baat. billaahi trop. billaahi. te te ñoo ñuy wax loolu kat xoolal yow la ñu bokkal. yow la ñu bokkal yow la ñu yow la ñu suuf moo baa ngi noonu. yooyee eh, balaa ngay xam dëgg dëgg dëgg dëgg ñi nga xam ne ñoo la jege ba pare oh di la siin te bëgguñu la. Ah. nga divorcé nit kooku ko ñuy jël xaritoog moom. waaw waaw yow ki nga divorcé sa yoon ba sëy ba jeex. moom la ñuy dem def ko xarit. moom la ñuy statut moom la ñuy woo téléphone moom la ñuy waxtaanal. di la wan ni divorcé ak moom. mais man sama xarit la di wan waa ji kii sama mbokk la moom laa nekkal. ndokk te fase nga ko. jotee nga ak moom mais terewul yow sama relation ak yow day continuer ndokk man boo nekkutu samay loxo nekkatuma ci sa ci loxo. boo féetewul fii féetewoo fee moom nekk naa fi. ndokk man man nekku ci say loxo dama lay fàtte. daal loolu mooy dëgg. man daal boo melee noonu man dama lay ragal ah. man moom boo defee noonu rek ma ragal. jigéen ñi nekk victime ci uh-huh. euh, association yi nga xam ne dañuy jàppale soxna yeeg yooyu. Uh-huh. Euh, loolu it war na nekk am combat woo xam ne war naa bokk ci seeni i combat. Uh-huh. lu yem ci diw dañ koo violé dañ koo dóor. parce que loolu tam ci violence yi la bokk. loolu mooy jaata nit ki. dañ mhm, mhm, comme ni mhm. ñuy jaata ngee fas. loolu la. da nga jël ay seen takk takk eh, ñaari tànk ndaw si. Hmm, pour mu jóg fii nii alaaj hmm. dem ci wanag bi nii te toog ci salle bi diggante bi mën na fi def trente minutes. Hmm. waaw waaw dootul mën a fi dara dara. ndakaaru bu fa mën a dem. wallaahi yow léegi nga tànku nga ne ko du ma la du ma la fase. waaw du la fase. waaw islam nee waaw. ah buum bi ah, sama ndodd lii sama loxo bi la ne. Hmm? ma neexee rocc ko ma neexee du ko rocc te rocc wu ma ko. Hmm? ba pare yow alaaji ci diggant bi am nga fi ñaari jabar ci fukkaat yi. waaw nga fi ñaari jabar ami fi gel. am fi gel ak i nekkaale. ak ñoo ñoo ñoo nekk ak bàyyi leen. ko romb sax nag di ko romb sax ak say loolu daal dama loolu ñi mu dal seen parents yi la neex. wala ci boo toogee say jabar di leen nettali yow sa vie bi nga passé ak moom. ak moom. ñàkk jom di ko tam. di ko sikkal di ko sikkal waaye say jabar bu ñu amee fulla xool ndaw see mi ngi toog boobu ba yàgg sëyul te yow foo toogee amee ko dinañ xam ne sa xolo fa ñëwul alaaji gis nga boo koy sikkal jabar yelee na bu ñu bu ñu muusee dëgg war laa ragal ah, loolu laa wax moo ko <laughs> Ablaye Mbaye Pix ji dellu si na hmm. yow Ahmed Mansour Diop fu mu nekk di la defal teraat hmm. yére yi ngay sol sax hmm. moo la ko jox déggoo ma kilifa goo xam ci république bi moo la booleeg moom te foo leen dem ñooñu compal nañ la may na Mm. dégg nga loolu. Mm-hmm. alaaji ma xëy. Mm-hmm. war laa delloo njukkal. Mm-hmm. ak teraanga war laa tiitaroo ne la fu ñukk waaw. dem ànd ak sama beneen noonu sa noonu. waaw léegi noon boobu bu dee muus na dëgg dëgg dëgg. war na xam ne gis nga Ahmed mii. benn li ko mën soo Diop defaral ci àddina. ci mm. teraanga am na man mënuma ko. comme que moom moo ko jàmpaaka. waaw bu yeboo man ma wàcc. Ah. tôt ou dana ko def. baax na. rawatina koo xam ne nag jaar jaaram moom. da koo def sax defaat ko. wala wala mu ne la sa tuba daw ko. xam nga tuuti daw ko. Ah, parce que la mu wax ba jot ci tubéy ja. daw ko jeex na fa. Ah, baax na. wallaay dëgg la wallaay dëgg la. <laughs> alaaji am na ci. jigéen ñi daal sa waay alaaji ñi seen waajur yi. gis nga ndaw si doon wax léegi nii. Ah. xaw ma am na ay càmmiñ ci kaw. suuf xaw ma am na nijaay déggu ma ne moom nijaay jaa ànd ba ca kër ga. ban jox ko numéro waa ji ne France. nee na moom nijaay jaa ànd ca kër ga. léegi kan mooy ki nekk France. ki jur doom ji. moo nekk France. ah kooku nag defal ko tas day jafe. daa amul mbokk rek. dara jafe man xale jigéen bi bi ñu mayoon paa bi te mu bañ te mu ñëw fi ñu violé ko fi ba mu am fi doom. waaw bi ñu ko songandoo songandoo ko nijaayam dafa ñëw jënd ànd ñu dajale xaalis dem. te xoolal te xoolal bi ni ko. xoolal nijaay bi mi nijaay bi mi ngi dëkk fii suñu ginnaaw. mais yëgul woon sax problème bi. mais dafa am fulla alaaji ànd ak moom dem na. ba dëkk ba force mu may ko baat mu ànd ak moom ñibbisi xoolal te bu doon mën a bu ma fa jógee boo ko validé ok boo ko validé wul ak sëy mantulaay ci ittifaax lay nekk ak dëppoo ku góor ak ku jigéen ki ñaari côté yi bu kenn séddee l'islam bàyyi na yoon itam bàyyi na mhm. yow jigéen boo majeur ma man majeur ñu sëy ñu dem ba mënatul sëy ak man dama lay may baat mhm. boo mayul baat nga dem ut ay seede mhm. ñu jàpp dat lu weesu jour boobu nga jàpp yidda bu sa yidde matee demal uti jëkkër sëy bu dee ci l'islam waaw waaw imaam yi nag yéen yéen imaam yi surtout ak noddukat yi ak notable yeeg chef de quartier yi ah. arrêté ragal leen yàlla ci naan bu leen seedale waaw mën naa seede say waaye mënuma seede tas ragal leen yàlla dafa am nombre parfois tamit dañ naan dafa am nombre tas boo xam ni boo ko seedee baaxul ci yow après waaye wàññiwul da man ku bëgg a tas kaama seede la nit fexe ba jëkkër dee waxtoom dafa koy wax dañ naan naan dafa am nombre tas boo xam ne boo ko seedee baaxul ci yow maanaam warta passé juróom-ñaar ak warta passé mais ali lay la waaye déglu rek loolu balaa may dee ñu naan xaw ma ku tabax kaso alaaji. jafe ku tabax kaso ci kaso nee mujjee. au contraire ñuy dund ci biir kaso yi mettit gu ni mel. gu ni mel. yow nga ñëw jàppale leen si sa teraanga saw ñaq. waaye xam nga ne yàlla dina la bindal teraanga ci kaw suuf léegi ñu ñëw bëgg la gëmloo ne la ñii nga xam ne war nga leen a mën a dimbali ñu génn ci condition yi bàyyi leen ñu deeta waaw. lu ko may dañuy fekk ci condition yi. dëgg dëgg waaye gis nga gis nga dafa gis nga gis nga. li gis nga li tayib naan li tayib soose naan leen bidaa bi ah bàyyi leen bidaa bi <laughs> bàyyi leen bidaa te jaamu ci yàlla la fi daal sa cheikh nee na sa cheikh xaaj Malick daanaka wax de ni ni ni ni ni bidaa si te te te. ah dégg naa ko. aywaay saa yi moo tax bàyyi laa dàqal nu ko. Alaaji sa moromu nit ne ko dem ah. safara nga jëm. wallaahi gis nga. alors tey mii tey nii nekk ñax am na jigéen yoo xam. yow yow mën ngaa nekk sa jëkkër. benn fan la. ñeent yi nga xam moo tënk sëy mënut a ñàkk force la muy wane a kasa. waaw waaw sa jëkkër day nekk góor pire di la satisfaire ci kaw lal bi. ci sëy waaw bu dul loolu yoon may na la nga tas. Hmm. bu la mënta baane. da ngay tas hmm. waaw waaw. Hmm. bi ci des mooy an nafaqa. sa jëkkër bu amul dépense. boo ko mënee comprendre toog. boo ko bëggul ñibbi da ngay dem. waaw waaw bi ci des mooy ak wa sa jëkkër da lay woddu. Ah bàyyi leen bàyyi leen seen jabar ngeen jëndal benn wax wala benn basin tabaski ba tabaski wala korité seen jabar yi dañuy solo weer ak weer. loolu mooy dëgg ala chaque mois ngeen xotti leen mooy dëgg na. waxal di ko xal ka daw waaw waaw di ko jëndal di ko jox parfum. Hmm. di ko baane di ko jox xaalis. li hmm. ci des mooy. looloo sëy bi ci des mooy euh, euh, muy dëkkuwaay yi. alaaji yaa koy dëkkal. yaa koy dëkkal. waaw dëkkoo ko. di ko jox ay lal di ko wutal ko lal bu nooy chambre à coucher salon. te lay muy sàppee fu ko neex. Ah, waaw mm. alaaji. waaw ah. mm. defaral ko këram waaw defaral ko këram ba mbaax. bu taxagul ñëw ba sampal ko lavabo. <laughs> lavabo dafa am lu muy ànd. Ah. alaaji dafa alaaji alaaji gis nga balaa ngay wax yooyu yëpp. ah billaay point bu njëkk ba moo jiitu lépp. loo am am loolu lépp alaaji am ñoo xam tey. alaaji loo am loolu lépp te règle bu njëkk bi nga njëkk wax amoo wax mantu lay. nañoo dem ba tële. seen jabar comprendre leen ñaari at ñetti at ba ñeenti at. waaw mm. ah, mën nga koo yeewee. bu ñu demee ba bëgg a dem nga mujj menacé ku ne ko bu soobee yàlla beneen góor du la jariñoo. Mm. te yow mënoo. waaw yow mënoo gars yi man doon ko jox dox jox gars yi man ñu jëfandikoo <laughs> te moom bu soxla mu bopp. ah non ah non ah, <laughs> alaaji bi la de. ci la boobu bi la de. non dafa ubbi leneen. mais moo dugg condition. óoreegeedu mu óoree óoreegi óoree wala sëree sati sat ah alaaji yow bu amee ak jeeg bu ndaw ku toll ni mantulaay mii waaw waaw waaw waaw jeeg bu ndaw bi su ndigg mën nga xam bu ñuy bu ñuy dox sax bu ñuy dox ci ay kàlla sax da nga xam ne dañoo am doole waaw nga naan ko eh booy dox de léegi sa tànk yi. waaw léegi sa tànk yi waaw. fekk du ci fekk du ci moom de. ci moom ci yow la. waaw waaw la non non non la ca kaw ak oom bi. wallaahi la ca kaw. Ah. om bi ci boppam da koo attalu moo tax jigéen ñu bëree bëri bëri alaaji boo seetloo la ñuy teel a am tànk yi mitti mooy gën a gaaw góor la ca kaw la jandaan wax rek waaw bénéfice la ni nii boo ko yaayee ba faw nga faw nga muñu muñu muñ bi waaw waaw bala ngaa dégg ni kii waaw sa digganke bay jonga ma waay moom ma ko kalaamee woon rek mu wax ma ko sëriñ muñal waaw yéen ñii judd ci soixante dix-huit quatre-vingt ci jànq ji lii daal balaa ngaa dégg ne ci eh, am na yaa ngi koy rafet wala mun surtout yaa ngi koy rafet di ko muñal gën gën a gàtt billahi nee na gën a gàtt fukki at yow ku góor ki yow yow lañ naan muñal ama jigéen lañ naan muñal jigéen lañ naan muñal waaw mais góor yow waaye nee na góor balaa ngaa dégg oh mun suur mun suur yaa ngi koy rafet na ah. nee na balaa nga koo dégg ah. di nga muñ yow gën a gàtt gën a gàtt sax la wax de fukki atu yàlla waaw jigéen ba moom faatu na mun ngaa muñ ñaar fukk déggoo ma de. boobu madame moom wala. non non non te yow liñ la wax. yow soo non waay waay bàyyi leen ma. non déggoo waaw mais da ko non c'est que ñoom ñu ko waxee ñun génération bi mën nañ koo bañ a def mais boo déggee mu wax la loolu yow da ngay muñ ba dee gone gi nañ ci ci kër gi di caddi caddi nekk en bonne humeur di jay jay léeg-léeg mu mel ni kuy tépparti ku di waaj a jot terrasse. ah ngay muñ. ngay muñ bu fekk 10 ans nga xool buy toog doo ko wax mu ñàkk sama ndey. njaboot fa ñaari ñett ba ñeenti bant. mu commencé am xam-xam moo ko poñ. lay waaw waaw. ah fu mu romb ñu ne ci. waaw commencé di commencé di ay gongom di leen. sànni ay neex neexam di li nga wax alaaji. Ah? loolu mooy dëgg de. ah yow. waaw hmm. loolu mooy dëgg de. waaw bu ñu si léeg lekk ci code daay li. waaw maanaam colin gi. colin gi mu génn rek ñu jox ko cër. billaahi. ba léegi nii nettali li muy dund ci biir kër gi. parce que biir moom daanaka moo bàmmeel la dafa bëri sutura. wallaahi ma ngay sombi wala ginaar lay lekk loolu moom nit ñi duñ xam dara. duñ ci xam dara waaw waaye bu solo xëy ñu neex. Hmm. dëkk waaye ko romb ne diw de fii la dugal suñu doom ci. Hmm. gars bi buñ dugg see yéeru saal bi yéeru it. Hmm. chambre à coucher bi. naw la dalati naw la waaw kay waay. waaw kay bu ngeen tëddee ci kaw ah. da ngeen di kontaan. fekk na yow pousse pousse pousse pousse nga ci kaw dalaat bi. yu neex yooyu ñu xëy. pousse pis pisal yu neex yooyu di xeeñ. Mhm, mhm, mhm, alaaj ba ne di xool sama moom di kontaan. waaw waaw waaw day am. billaahi day am tafree. ah tooñante kii. waaw loolu waaye ba tey man maa ca règle bu njëkk ba rek. loolu moo ëmb lépp de. yenn saa yi nga am ci yow. yenn saa yi yow moom benn jeeg bu ndaw foo xam ni itam. yéen jéeg yi ndaw yi teel a tëdd yi itam di devant seen jëkkër yi tëdd nelaw bàyyi leen yi ngeen di def. waaw dëgg la dëgg la. mbapp rek dëgg la. waaw kooku jigéen du njëkk nelaw jëkkëram. waaw itam yow nooy xamee sa sa jëkkër. déedéet déedéet man man moom ah. man moom ku may jaay dama naan naan jigéen du njëkk nelaw jëkkëram. waaw loolu la dara tooñante fëgg nga yeew fëgg de yeew waaw loolu mais boobu itam taxul mu nekk. waru caa àgg waroo caa yàlla. waaye góor ñi nag dee leen. ortudu am leen ko daal. ortudu daal. en tout cas daal nañ bàyyi. ngeen dem ortudu daal nañ bàyyi biddaay te jaamu yàlla. xam nga koo xam ne day leer dem yoonam. nañ bàyyi biddaay te jaamu yàlla ortudu si deux heures du matin. joyeux anniversaire ak du ko de madame Ndoye Mali maram ah, waaw mu génn ah, madame Ndoye ngi noonu dégg nga Mantoulaye Djibou Ndoye ah, kii de kii de jëkkër ji moom sa doomu bàyyi jëkkër ji la rakki du ko de mii waaw borom gël rakki du ko ree siyaar bi ko ñu wér wér waay waaw waaw rakki du ko borom anniversaire bi waaw nit ku dëkk joyeux anniversaire waay. fayda yenn saa yi nga la fu du soxyaante wala sax ngeen benn place bu ngeen di liggéey nga ñàkk nga ñàkk fayda li di tiitaroo ko doose wane wane nit ñi joŋee. di tëltëli di jaay may chef nangam nangam ba mu ngeen tàqali ko taseeg benn Ablaye Ndiaye bu baax di ko toppatoo wala muy diskatu dëggantaan di sol yu gàttam yu xatam dootoo am jàmm xeex ngeen di mujj dem tribunal waaye lépp ngeen def góor jigéen boo ko nobbee da nga koy téye boo ko boo ko téyewul nga fase ko may ko baat waaye duma la bàyyi duma ma la fase nangam nangam te bu ngeen mënee takk dama naan ci ndaal te kenn du ci naan. bu ngeen mënee takk ñaar ngeen takk ñaar bu ngeen ko mënul ngeen def ko mu sekkat ni mu dafa ci benn te muñ. te muñ toog. doyloo ko yàlla Sénégal jëm kanam. kese mais bëgg a takk ñaar kenn ki mën na dara kii mënul nii nga jeng. xoolal kii ne dama woy sama jabar teel a tëdd champion la ci. yeneen tamit tëkk boole maa ngi moom tëkku na góor ñuy jeng. Hmm? loolu nag loolu nag góor ñu bëri ñu ngi def nekk loolu moo gàttal seen fan. lan. seen jéegi timis ñu tëdd bu ko defee ñoom dañuy bëgg a toog waxtaan dañuy bëgg a teel a tëdd léegi mhm. suñu xol yi di bon di ni mat parce que jabar ji dem na tëdd mais alaaji loolu question de femme la ah nettali naa gi nekk fii nii ndangan sabu mm. nettali naa la ko ah waaw moo ko aawa beeg ñaareel bi waaw <laughs> fàtte naa moom alaaji waaw su aayee waaw aaw bi moom yàlla dafa dogal duñu naan ataay mooy jigéen ñi ñoom duñu naan du naan ataay waaw waaw naan ataay te ñoom ñaar li ñu jot a sëy avant ñaareel bi di ñëw rek daanaka ëpp na ñaar fukki waaw xam nga li ma la waaw moom mosul taal ataay du ataay du naan ataay ba xale yi màgg léegi sax ñooy presque ataayal seen papa ak ñoom seen moom du naan ataay te du ko def moo tax baax ñaareel bi nag bi mu dikkee daa jonge moom daal bu aayee mm. bu aayee 19 heures dëkk yooyu dañuy teel a reer yow xam nga li ci dëkk ba. waaw bu ñu jullee timis us tuuti rek reer. waaw balaa ñëw reer mu teg ataay. def ko boo boo def nag. lëwal bi kay da koy teel a jox. deuxième beeg reer bay ànd bu ñuy raxasu naan dañuy reprendre laal ataay troisième ba dugg huit heures et demi neuf jot na. mu tëdd mun la lal ba ne ko acca <laughs> i mu ndox fati bokk nañ leen tëddi laa ko jëkkër ja waaye nañ ñun ñett. mu koy wax photo ñu tëddi. Fatima Ndox. <laughs> ndamba tox tox wuy ma alaaji. Fatima Ndox ma lay tox tox. ñu ne mes. mais bu aaw bi aayee toog ñaareel bi mooy togg. mooy togg toujours ataaya. mooy togg tu moom moom muy togg moom tous les jours. waaw parce que moo ko tam dégg nga loolu waaw. ma lay teg ataaya ja ginnaaw bi ñu reeree ba pare vingt une heure. <laughs> level bi nekk vingt deux heures. level ba day pousse une heure ba mu jógee dañ naan ko baal yi du ngeer pousse vingt deux heures mu laal lool. nit ñëpp la ñuy ne di jax jaxi xool ay ay jaayax jaayaxi ah moom tëdd na ndax moom ay affaire ataaya moom neewul mbiram. léegi golo yi dañuy mujj tëdd. xam ni li ñaaxil bi joué day puusaat. vingt trois heures et demi. moom alaaji rek ñu def mu laal deuxième. <laughs> une heure mooy troisième ba dugg mu ko xanaa di ma fi wéetali kay ma raxas bagages yi. waaw waaw waaw. raxas tuuri mbuur ma fa leen a ca boobu <laughs> bëgg yëpp fi ñu takk te bu dee moo ataaya moom. waaw waaw da ko ciy bàyyi ba suba teel naan bu ma xëyee sax doon na ci tuuti suukar. tàngal ko léeg-léeg li ndax ba ne raxas ndax bëgg affaire yi gaaw. mu teel a tëdd. teel a tëdd gaaw bi nan de. man ma fay ñëw di ko tooñ nga naan lan damaa bañ a tudd seen tur fii nii gars yi di woo aw bi di ko malak dama koy tooñ chaque jour dama fay dem nii ne ko eh del ataaya du ataaya xam ko del caa xam nga yàlla xam ko lépp ne day defee fu mag. di moo dàq ceeb Ismaïla Yacine temps yi ñu daan vacances. dil ataaye dil ataaye parce que ñi bëgg naa ko de. awul xamuñu dara boobu. gis nga alaaji nit. da ngay da ngay muus. ah oui dañoo féroce da ngay da ngay da am na ci ñoo féroce de. Eh, eh. am na ci ñoo xam ne yàlla mooy tudd seen jëkkër. ba ñu féroce ba tey xam nga li ma euh, am rek am rek bindal leen ne. am ñaar wala ñett. mais. waaw léeg-léeg mm-hmm. nga gis si ñoo xamante ne. Mm-hmm. yoo xamante ne boo gisee seen xel mujj dal sax. yu sadik waaw maanaam ñu ngeen indil ñu ngi lay indil bi ñu poussé poussaat pousse poussaat. xam na ne du ñoom ñoom dafa mujj soppeeku léegi Barça ak Paris bi démb. <laughs> xam di nga fa ñëw. lii lan la. commencement bi mën nga tiit. waa ji recevoir na la yaa Messi yaa yaa yaa yaa ngeen ñëw pousse poussaat pousse poussaat Mbappé triplé. nga xam ne lii fii sa waay ñii ndeke seen défense bi gaayen ko. non du benn du du may jàll. nga xam ne yaa femme bi daal création moo leen boole. waaye bokk leen <laughs> classe. bokkoo leen classe du niveau récréation bi rek leen boole. ngeen bokk cours bi. waaye bokk leen classe de. mooy li ñu gis démb rek. maanaam démb xaw naa dee. man duma ci tontu mbappi mbappi mbappi dégg nga loolu laaj. waaw léegi loolu day am. yow commencement mën nga tiit paniqué xale bi bi ñu ko indee taar wi am na nu mu mel mais bi ngeen poussé pousse poussaat pousse poussaat. à mm-hmm. travers ton mari rek. yow di xam ba xam waa ji bu fi aayee yàkkamti na wala bu fi aayewul yàkkamti na mm-hmm. déggoo ma ni mm-hmm. bu fa aayewul dina fay jaar yenn so yaay na saay bu fa bu fa aayee heure bi ñëw wala wala léeg léeg léeg lii yàkkamtee tëdd ngeen fi ba léegi waa wala déet léeg léeg lii koy xam. ah ba xa xam. da koy xam. Mm-hmm. na ay aaway féroce alaaj. yow am na ñu na ñu féroce. aywa nga xam ne dañoo jàpp jigéen ñi def leen jàpp leen otage alaaj. Mm-hmm. loolu moom boo bëggee dégg dëgg état bi ci boppam daf cee war a wax. xam naa xam naa dinañ ne xam naa fanal lañ état bi lu tax ñu ne état bi. <laughs> yéen lañ leen yéen lañ dénk suñu ëllëg ak suñu kaaraange. suñu mais xam nga fan la war a waxee. ci yoon. waaw moom laa wax ci yoon foofu da da da li nga ne lu ne ñu jën ko état bi bii moom am nañ ci part de responsabilité bu rëy rëy. du tuut sax bu rëy rëy lañ ci am. luñ jub tamit xale ji góor mën na gaawal procédure mais jigéen moom yow da ngay taxaw di xaar ñaata at pour seeyaat. oom 511 bii li nga wax tegu ko fenn. naa ma da ngay encouragé divorce. waxul waxul benn dëgg. waxuma benn jëkkër damay encouragé nit ñu am jom pour parce que jigéen boo ko takkee dafa toroxal da ngay sëy moom normal sëy moom normal ngeen takkali ko comme ni comme ni divorce daga ne bàyyi leen caaxaan yi. baax na. bàyyi leen caaxaan yi jigéen da koy teral wala ko nga baxoo. dëgg la bàyyi leen caaxaan yi. <laughs> dëgg la de. man de ku takk sama rakk wala sama jarbaat wala ku ma am ci moom accès boo ko torturé ma nangu ko. nangu force non il faut ñu génne ñàkk jom ci góor bi yow li la war li la war yàlla def koo wax wan ak kasa. waaw wan ak kasa li muy alaaj. li nga dëkk moom di nga ko woo alaaj. Ah, waaw waaw nga ko jox dépense di nga tëdd moom. nga baanee moom de. yooyu boo ko mënul. Hmm. bàyyil jàmbur. parce que amul benn góor bu taxaw. si ñeeg yàlla contrat ko ndaw si pour man kese la. divorce dafa dagan. buggoo ngay ñàkkee jom. bay bay daw responsabilité am say say say say divorce sakkan. bu goo ba mënatul a muñ sakkan. voilà dañ leen a xamaloon muñ yaatu dënn ñu lay tooñ ngay meroo ngay dafante ngay wokkante ngay xuloo yooyu yëpp moo fee ñoo ànd. bii ji bii ji baa ji waaye bu fekkee une deux daw sa responsable moom mi wóor man dañ ko ñaan baat mu bañ. waaw eh. moo tax nee naa mu bañ de moo tax xoolal fu mu toll nii ndaw sa ko ñaan baat lay bañ nga mu dégg ko. Ah. nga xam yoon bi. su ma su ma su ma jox ma ko parce que jox ma ko sama numéro benn. te li ma waxoon. non non non non dañuy jàngale boobu. aywa ah, comprendre ko alaaji nekk nag ak sa position moo position. Mm. Mm. déedéet man dafa man dafa dafa maa dafa maa ne ma da ngay encouragé divorce. waaw déedéet non non non non non non non non non Mohamed Diaw ma Mohamed Diaw mi mi mi may enregistré tos yi bàyyi leen ki ngeen di saaga sama sama sama stagiaire bi nga xam ne léegi moo kal moom bi ci yenn day enregistré rek jox ma 70 bi bi. jox ma leen ma wax leen 70. 785. ma xam ko Fatou Ndiaye. 71 47. poset bu Maroc. 70 waaw 785. carte d'identité 71 47. Ibrahima Keita. laaj may ma rek ku ko gis da nga ci 78 257 66 62. waa mais mais mais wuyu ma. Mhm. alaaji alaaji. Mhm. garaawul. ak 022 bi 81 40 defal 022 81 40. baal nañ leen 77. wa 77. baal nañ leen 022. 81 40. la illallah. man bàyyi jàmbur bi nag. moo tax bu ñu ko tiital muy daw. non ah, moom it nag góor la arrangé. ah moom it nag góor la. ah déedéet déedéet dañ ko bàyyi nag. bu ko saaga nag muy tiit nag waaye dee leen mu tiit nag. yàlla ngi ànd ak jàmbur bi. ñu ngi leen. Mm. aywaay mu ngi leen waay. alaaji. léegi ay puits yu enregistré wul la. alaaji alaaji bàyyi wër tur leen dee leen muñ yàlla ngi ànd ak at yi ñuy muñ. chaque jour ñu sikkaral fi wax ñu fi loo xam ni war naa jarub xaru. Mm. chaque jour yéen ñii alaaji seen biir kër ngeen gis loo xam ni moos. jar na ngeen football ya wala ngeen baat daw te teewul yéen a toog ne pat dégg nga loolu waaw il euh, waaye mën naa muñal sama njaboot ak ah. waaye euh, euh, boo ma ko affronté man daal das yee déedéet bu ko affronté da ngaa wax sa xalaat nga xalaat dafa waxal xalaatam dafa maa weddi kay kay wuy ma wuy ma dañ ciy kontaan wuy ma bul tuumaal wuyu ma bul ko hakkee boo demee sax xam ko ndeysaan da ko rek alaaj nit da nga koy rusee mhm, mhm. ko rusee nit nag ma de ko rek ñoom diw ma ne bàyyi ko rek tontul alaxam mhm. ma ne doom ja mbeen ak jëkkër ja dañu maa bëgg chaque jour fajaa ma romb seen buntu place. ñuy jaay yu rafet nekk samay xarit. Mhm. waa mais alaaji. Mhm. moo ala xam kon bu ma ko tontoo tey ba jaaraat place bi leen su ma jëm. wax dëgg yàlla. wax dëgg dem fàtte koo ci gëñoom alaaji. waaw nekk sama xarit. waaw jëkkër yi nekk sama xarit. Mm. yor seeni i sob. Mhm. def benn beau et bon couple. Mm. yor seen oto ne ca. fu ñu dajeeg man ci Cambérène bi sax sama verre yi ñoom ñooy de. ndeysaan déggoo ñu ne ku ne may wàcce ku ne am na koo koy mm-hmm. moom nag bu ma ruseewul mbeen waaw man ma rusee ko mbeen rusee ko mbeen sama xarit la rusee ko mbeen ah, alaaji mm-hmm. dégg na nga tontu ndax daal soog ci télé bi ne la lii ak lii déedéet déedéet doom ju fàqee ko ci moom déedéet waaye ma xool ca mbeen mbeen sama xarit la waaw muñ rek bëgg ma di ma bu ñuy tas fii dama yónnee message muñ rek ah. muñ rek muñ rek dëgg la muñ rek muñ rek alaaji de. Xaadim Ndiaye maa ngi lay siyaar Momar Cissé bu baax a baax ak Moussa Tamsir Ndiaye. yow eh yow Youssoupha may ñu yow may wax mu naan ay retour na nay maa rek xaw ma kan ak kan ak kan. waaye ma ko dama koo faanal Youssoupha la xoolee xool leen bi xam nga ne poussière bi lii bu ñu laalee li ci kanam rek ñun ñu faatu. teer bala de. Hmm. xoolal sama jigéen bii rek. nekk moom it ba Belgique yooyu eh, lay dund de. li fi hmm? léegi léegi. Hmm? wallaahi moom kay dem na wuute ay atakatam. jigéen ñaa ngi souffrir. man ci lay amu ko jigéen ñaa ngi bëgg a dee ñu bàyyi leen ci rek ci ak seetaan ak goo xam ne tegul fenn jigéen boo ko mënta ta yor fase ko ngeen tàqali ko wuti keneen nga wuti keneen bu wutiwul keneen itam génn ci ak lu ko neex def dëgg la de bëgg jël jigéen di ko torturé naan da ngay encouragé divorce yaa xayti ma laa naa ah, ah, ah. xam nga am na góor ñoo xam ne supporté wuñu ku leen man maa yow nga njëkk bàyyi daal maanaam bu dee am poola nga man maa njëkk sonn bàyyi yeneen na maa leen gën ne dañu dañu ki gën ci nit ñi mooy ki gën ci njabootam man maa leen gën ndax maa gën ci sama njaboot. ki gën ci nit ñi mooy ki gën ci njabootam man maa gën ndax maa leen gën ci sama njaboot. yow laa yi tënkal li nga war a waxee bu suba suba tamit tës bi la am de comme genre mais bi yoon góor a voilà violence ñaari ko dinaa bàyyi du ma bii yoon moom góor a wax bii yoon góor a wax. góor ñaa ngi nekk victime bay bëgg a dee. waaye tey. est ce la. non ñi xam nga lañ nekkee victime alaaji. ci kanamu tribunal bi. na ñoo xam ne instant bi mënuñu fase seeni jabar ndax mënaas bi lalu seenum ndodd am na ñoo xam ni fi ne amatuñu dërëm dërëm dërëm dërëm ndax ndaw sam riwine na leen. jaar tribunal. ñoo defoon fayu lu yaasu vingt cinq mille sax mënatuñ ko ñoo ko defoon déet déet ba signé wuñu ay affaire ay monogamie di am na ñoo xam ne non am na ñoo xam ne signé wuñu dara mais bu ñu demee ci kanamu tribunal bi ndaw si day geetaru ñëw taxaw wuti ay avocat yu saf sap ñëw taxaw hmm, hmm. waaw waaw am na fu mu lay jaar maara day taali àdduna la ñu nekk hmm. barki yonent bi da ngay léegi ñu ne la xale bu nekk bu weer wi dee comme que yaa ngi liggéey te liggéey sa salaire day ko jox ñaar fukki ñun am ñetti doom nga vidé sa salaire bi. conversé chaque mois waa ji laa lay wax nii xoolal. fekk moom ma nga am beneen borom kër. di say feneen. essence mënatu ko jënd borom. moo tax ñu bëree bëri fi léegi. bu normal amoon normal rek. football nañ seen i jabar bu yàgg ñu dem ñibbi. mais am na ñoo xam ni euh, épée boobu nekk seen kaw bopp bi tiim leen. Mhm. góor yi souffrir ñoom it am na góor yi souffrir de. c'est vrai. violence faite aux hommes dafa am de. goree di rek ah waaw waaw. day day bëri. am na ñoo xam ne ay ay ay ñu baal ma ci kàddu gi ne léeg-léeg nga daje ceeg ñoo xam ne tamit alaaji yi Euh, danga sori ba doole de. yu leer a leer la. dootuñu xool ne deret dox na seen diggante. Mhm. yéen sax dañ lay mhm. Mhm. dañ lay rey bu may ñibbi du ma fi bàyyi dara même karo yi dama koy xolli par contre. am na nit ñoo xam ne moo xoolal. gis nga sër bañ leen muuree woon ak sër ba bi indi woon te ko. waaw bu ñuy dem moom lañ naan coppet. ne la boo ma mënee liggéey liggéey ma. njiit laay baal ma silip. bu ñuy dem sa bàyyi la ko ci toilette yi. ne la lii fii laa ko jëndee lii fii laa ko jëndee. sama fukki at yi ma fi def yëpp. moto mhm. soxlawu ma ci dara. prends mhm. tout jëlal tout. tout waaw dem seen yoon. am na ci réew mi ah waaw. barki ah, waaw ah, waaw. dërëm toggukaay yow ah, alaaji ci ñi ak xoolal seen i mbokk dañ naan ko wuy ma bàyyil ko mhm. bu xëyee xool bagages yi. wallaahi moom ku góor ki xool bi noonu nag le contraire bi ame loo xam ne moom boo laaleeg ñoom. waaw xoolal ñu yàq sa àdduna. waaw. yal na yàlla dolli jàmm. amiin amiin amiin amiin amiin yàlla bu suba nee na góor lay wax. waaw bu suba ñu yàlla bu suba ñu yeggali ko incha allah. Mm. des femmes qui souffrent. waaw. Oh. violence faite aux femmes. y a des femmes qui souffrent. y a des maris battus mais am na ñoo xam ne sax li ñu leen def moo raw bati. moo ah. Mbaye <laughs> caaxaan yi te jaamu ci yàlla la. Mbaye biddaay ca dem jaamu ci yàlla. dañuy gën a gën a dem domaine ba ca. président Amadou Dia ñu ngi lay jaalawaat. Pape Alé Dia ñoom yàlla yàlla dolli jàmm alaay. amiin amiin Seydina Mohamed alayhi salaam bi nga xam ne tamit bugaan gee dañu yoreel na ma ko dama ko gaaw fay. ah da ngay demoon yàlla nañu yàlla suturaale yàlla nañu yàlla jàppale. waaw ah, kay de. bu ko fa doon dogal amel ba. non non alaaji Simeer Diop kon mbokk yi moo nekkoon ci xarale gi sama taaw bu jigéen baa ngi nii rek kon mantu lu kaku comme que moom mooy nuroo léegi sëñ bés gi tax nga xale yu góor yi léegi fu la ko génne télé bi ñu nga fora sa papa lu kaku éliminé nañu ñun fépp championnat Italie doo leen def sa papa boobu di fa football waaw euh, di lu kaku waaw min naka mi melen noto mun a war a de alaaji Mansour Diop ana kan la dendal sëtu ko tedd ki borom maamu barrière or ba ca Médine Banda Soumbani Khourech Chérif Ahmed Aïdara Karara monsieur le maire de la ville de Guédiawaye ngi nii le procureur du peuple la ngi nii ñu la titre waaw kay xale yee ma ko tuddee ak voilà te dara ñaawul waaw di leen jox kon dig daje suba